yaa xayra dayfin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellu siwaat ci naafile yi ñuy jële ci téere sëriñ Suhaybu bi ñuy wax Xurratul Ayni dafa wax ne guddik juróomeel ga ci weeru koor ku ci julli ñeenti raka raka bu ci ne mu jàng fatiha benn yoon jàng alam nasra ñetti yoon jàng xul huwallahu ahad ñetti yoon mel na ni ko aj junni yoon umra junni yoon dees na ko musal ci ak ñàkk dees na dolli wërsëgam te araf wu ci ne dees na ca bind ñaari malaaka yuy far aw ñaaw teefam di bind ay yiwam di ko yëkkatil ay daraja ba bis ba dellu si déwén te bu faatoo dees na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaat te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp te des na ko musal ci mitiitu dee te faaw dana am ngërëmal yàlla te bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana mu di ca xéewlu ba keroog bis penc ba jërë ngeen jëf wassalaamu aleykum wa بالعز